masawa is jaa yamta Maodo nee na e taalibe bi nga xamante ni rëy na ci diggante mook sëriñam ba foog na ni lu ko sëriñ bi sant lu tuuti lekk jaam la ko def rëy dak ko ca Seydi Hadji Malick nee sëriñ booba bu ko bëggee àggale ci yàlla it dana sonn ci moom ah, mu ne li ko war mooy mu wàccee boppam te déglu kilifa gi mu amal affaire lu mu ko sant mu def ko ndax moo xam fa mu koy yóbbu moo tax Seydi Hadji Malick ne maza buur looy rëy rëylu wa antal xaamilu baynahuma najasatu mu ne ku fàttaliku sa cosaan ñaar ñi la ëmb seen cosaan sobe la ñu rëy xaju fi waaw wa antal xaamilu baynahuma najasatu yaa jaahil Maodo nee na yaa réere sa boppa ndax ku xam boppam du rëy rëylu moo tax wàllu yi xam seen bopp yépp wàccee nañ seen bopp maada takabbur alaysa sa maa u wa tiinu yaa fatiin Seydi Hadji Malick nee na looy rëy rëylu ndax sa cosaan doonu fi woon ban ak ndox ñu jaxase ko nga bàyyee ko ca ca maam aadama kullukum min aadama wa aadama min turaab moo tax Seydi Hadji nee na ku yore jikkay jàmbu jóob rek doo dem ndax boo ko nee jàmbu jóob yaa rafet mu firi ay laafam di rëy rëylu loolu la Maodo tuddee rëy rëylu sang bi nee na keroog rëy amu fi rëy rëyloo fi am rëy kenn naa ko am muy jalla jalaaluhu subhanahu wa taala moom rekk a rëy mu ne ak lan mu ne jikkay ganaar jikkay ganaar ku ko yore doo gaaw a àgg ci yàlla ñu ne ko ndax lan mu ne ganaar dafa salte ganaar dafa salte nit ku bëgg àgg ci yàlla nekk te nga tilim salte loo tudd tudd baatu yàlla nekk yàlla ngay xool sa jëmm ni mu mel nekk waaw yàlla ngay xool sa jëmm ni mu mel nekk ak baat ba ndax safaanoo nag sa jëmm wala ànd nag sa jëmm ndax baat bi ngay tudd daa sell yow mi koy tudd da war a sell yow mi koy tudd boo sellul rek li des ci yow la desee waaye baat boobu mësta cang fenn fu mu jógee rek àgg ci subhanahu wa taala waaw moo tax Seydi Aji Malik nee na booboo ca tegu muy jikk ay ganaar mu ne koo gis mu yore ko wàlluyu pour mu àggale ko dana jafe wala bu koy àggale diggante mook boromam la koy jaarale waaye du doon ci ay fooy wàllu yi xam yàlla piir ay fooy yi duñ ci jaarale nit waaw am na nitu yàlla yoo xamante ni ku yaakaar ay fooy ci ñoom duñu la jàllale ci yàlla parce que mën nañ laa yóbbu te duñ la jox benn tur waaye ndaw ñépp li ñu xemam léegi mooy man ngi ànd ak diw te joxuma benn tur maa ngi wuti ji keneen ah boo fa eggee ñu jox la tur bu lay gaañ rek nga dugg ca néeg la daloon waaja dal la waaw góor gi ne moo nga ca néeg ba di wir di ba ci yàgg am lu ko pes mbéj ne ko bàyyil raxmaan ndax tur wa daa am raxmaan waa ji ne maane ne raxmaan pes ba dalaat mu ne ko bàyyil raxmaan laa wax mu jóg taxaw mu ne ko maane ne raxmaan mu pes ko ñetteelu yoon mu mbëkk bunt ba génn ci biti taxaw na maane rahmaan nga naan la xam nga ñetteel ba ñàkk pexe dugg na waaw moo tax am na nitu yàlla yoo xamante ni booy ànd ak ñoom da ngay gëm ni mën na maa àggale ci yàlla te du doon tur sang bi wax na ko ba tàyyi affaire yaa ngi ci wasifa ak lazim ak xadaratu jumaa wax na ko ba tàyyi affaire waaleykum asalaam wa rahmatullah affaire baa ngi ci lazim ak wasifa ak xadaratu juma dañu tëyandi woon micro bi rek pour eh, wax naa leen léegi sanga bi daan wax ni kuy voyage ji ëllëg kenn du ko téye lu yàgg ma ne leen nañ ko xaarale insha allah bu ñëwee mu wax ak ñun ni ñuy def ak voyage ba loolu rek a tax ñu téye woon micro ba ñu xaaraale ko asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum wa taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara. di leen ndokkeel di ñaan yàlla ci mbaaxam yal na bés bi dellusiwaat déwén fekk ñu fi mooy yal bési Louga bi dellusi déwén fekkaat ñu fi ñun ñëpp fekk ñu ngi wér ànd ak wérle ñu ngi mucc ànd ak mucc le yàlla toftal ci wu yaatu ba kenn ku nekk li mu bëgg ci diine ji ak mbokk gi ak tarixa bi ak tarixa bu mu mën a aju it yàlla defal ko ko tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin ñu ngi nuyu kilifa yu fi nekk yëpp jiiteel ci ni ko sëriñ Sidi Ahmed Mbay waxee léegi suñu xarit suñu soppe suñu mag suñu wëllëre yaa sayit sëriñ Sidi Maxtar Kunta yaakaar naa yéen ñépp xam ngeen ko benn xarit la am ci kaw suuf moom mii toog la ñu ci des ñépp ay soppe lañoo ki wëllëre loolu nag léeg am ñu ci mer waaye ku ci merit loolu la yàlla def je m'en fiche bari nañu ciy mer fekk dañ xamul islaam ku bëgg a xaritoog ñépp nekk naa fekk xarit benn rek lay doon benn comme ne koo dégg diw sama xarit la diw sama xarit la naa fekk rek la man nag li ma jàng rek laay wax alxuraan bi alxuraan jeex cent vingt 124 millions yonente ci nekk maanaam yàlla tuddul ñëpp waaye junj na leen vingt 25 ci ñëw seen tur su ma juumut ci alxuraan la ci yonent bi tudd waaye 124 mille lañ bi anbiya wa rusul 124 mille yooyu yëpp kenn la ci yàlla seppi turam. wattaxazallahu ibrahima xalilan maam ibrahima rek la yàlla wax ne moo ciy xaritam yonent bi huwal xabibu yonent bi soppe yàlla la soppe moo gën a ëpp doole xarit xamu la moo tax maam ibrahima gën a sonn ci yonent yi moo tax kii moo gën a sonn ci ñi ma am sa xarit boo reyee nit sax man nga ne moo ko rey mu ne waaw loolu nag yombut moo tax maam Ibrahima gën a sonn ci anbiyaaw yi gannaaw yonent bi gisuma ko gën a sonn maam Ibrahima ndax lim daj ci diggante ay buur ñii di ko pamti pamte Namruus fii ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon nag loolu rek foofu lañ ko teg ki xam yàlla piir nag yegg ci yàlla ba sës rek te xamantuwu ko muy Seydi Aboubacar si alxalifa moo tax boo ko mosaan jox guro si ñab du nee na du ko xar sax ni da koy màtt ci digg bi mu ne bañ laaj ko bés si lii lu tax mu ne de ragal rek taqale ñaari xarit ndax ñaari xarit yu ma fekk ñu kolewante man Babacar duma leen tàqale mukk mu ne wa kadhalika loolu mooy nit ak xaritam yaay benn ngàdd bi muy benn ngàdd bi ñu boole ko muy doomu guro loolu mooy xarit ñetti ngàddi guro nag amul ñaari ngàdd rekk a am yaakaar naa ko de kon docteur Sakho yegsil nii ñu ngi nuyu ñëpp xam ngeen ko muy suñu xarit di suñu soppe di suñu wëllëre di suñu lépp di sëriñ Sidi Moxtaar Kunta ñu ñaanal ko yàlla ñaanal ko suñu bopp yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér te defal ñu ko defal ko mbooleem jullit ah, li ci des nag ñaar rek la dafa am sëy bu may mayee léegi jigéen ñi ñu ngi leen di nuyu góor ñi ñu ngi leen di nuyu sëy bi may mayee léegi nii tabaarakallaahu mbaax weesuwu ko ku góor ki loolu du fi gan moom ku góor ki mosul gis ku jigéen ki xamu ko sax mosul dégg téléphone ku jigéen ki it xamut fu ku góor ki dëkk xamut nu mu tudd mosu ko jot sax téléphone ñoom ñaar sax li gën a gàtt mosuñu ñu jotante téléphone te maa ngi fas yéene maye leen léegi te nag foo fekk nag ñii cippi cippi ñaar rek la damay wax toujours ne ku xiif juróom-ñetti fan lekkut boo ko tegalee bool balaa xam ceebu jën la wala maafe la dina lekk ba suur njëkk loolu nag junju la waaye foo ci fekk koo naan kii mu naan picc ci kii kii kii mu ngay sëyantu man maa la ko seen Babacar si moo ne ku sëyul sëyantu waaw koo ko ci gisee rek mu ngay sëyantu sëyantu nag daa bari ay façon loolu lu ma ay détails la yoo xam ne beneen yoon dinaa ko toj li nit ñi di ragal dama koy wax parce que am na loo xam ne boo ko waxoon nit ñi duñ ko jëriñoo te Sénégal dégguñu wolof ndakaaroon nag rawati ci tubaab rek lañ dégg su ko defee kon kii intellectuel ñoom ñaar ñëpp ay intellectuel la kii professeur la ki ci desit professeur la directrice de école la yaakaar naa ne foofu njàng fa la yem buñ doon cippi ci pexi dañuy wane ne ñoom ay intellectuel lañ ku góor ki baayam moon njëkk a nekk meeru Mbuur moom muy professeur à l'université te ki ma koy may xamu ko mosu ko dégg téléphone muy jarbaatu Serigne Sidi Maxtaar Kunta mii la moom ku góor ki ku jigéen ki magam a ngi nii toog muy docteur Mouhamadul Habib Sakho mu ngi nii toog mooy docteuru hôpital Abdou Aziz Dabakh bu Tiwaawan rakkam la bu mbokkal ndey ak baay abu jaw bii xam na ko ndax su ma jógee ci sa salaatu tasbix ba école am lay defal conférence rek at bu jot dana yëkkati deux million deux cent mille dimbalee ma ko ci ziyaare Louga bi xam ngeen loolu du lu tuuti ak juróom benni nag ah wax le sëriñ buy def loolu baax na walla baaxul at bu jot dana yëkkati deux millions cent mille francs ak juróom-benni nag dimbalee ma ko ci ziyaare Louga bi ne ma maa la ko dimbalee loolu na ko ñëpp xam ma door a jël nag samay daqaar ak samay buy boole ci nit ñi dañ foog ne ziyaare bi lii ay caaxaan la li ma ciy def bu ma leen ko waxoon ngeen fëgg seen dàll yi génn xam nga Thierno Bachir fu mu yëkkatee deux millions deux cent mille ak juróom-benni nag te xar yi bokk ci. Hmm? ah docteur Sakho ak lim gàddu yépp sànq lay dégg ñuy wax ci tele bi bi président demee ñu ne président moo tabax day tabaxal cité religieux yi ay kër dëgg la comme ba mu def Tivaouane contraire bi la Thierno Bachir def Thierno Bachir moo tabax résidence pour Macky Sall chef d'État le président de la république Macky Sall au lieu président Macky tabax Thierno Bachir moo tabax pour Macky sàll pour président Macky sàll dama koy bañ a sàllalu pour le président tey lañ ko doon inauguré ah kooku xaarul état ci dara man nag façon boobu laa bëgg ay sëñ si di tabaxalal président sa kër waay man façon boobu laa bëgg. gis nga eh, kilifa diine dafa war a noppal état état jublu ci population bi foofu laay jeexale sama kàddu doonte nag eh, ni ñu koy waxeeti kooku sekk ok ah, doonte état Serigne Cheikh Tidiane si nee na foofu laay jeexale <laughs> jam nit yombut nee na grève yu métti yi su ma juumut 88 wala weesu na ko waaw 88 nee na Serigne pam Malick dafa ñëw ne ko wax ci ngeen may ñu tuuti jigéen ñi mu ne Serigne Pape Malick dafa ñëw ne ko bu ma sañoon nga def conférence université benn 68 la wala 88 bu mu ci mën a doon ah 68 waaw kañ nee na mu ne ko organiser ko. Pape Malick or sëñ Pape Malick porte-parole bi organisé ko nee na Senghor yónnee ci moom ne ko fait très attention étudiants yi dañu mer te damay bañ ñu gaañ la te sécurité bi doyul te amuloo sécurité nee na mu ne ko man ma sécurité taalibe la samay mbokk taalibe lay fekki nee na ñu dem ñu organiser ko ñu dem nee na bi fees det nag étudiants yi commencé nag di révolté nit ñi bëgg leen a arrêté ma ne Pape Malick bàyyi leen ñu wax li gi nekk ci seen dënn yi ñu génnee ko mais eh benn étudiant jóg jël parole ne ko vous marabu marabouts marabu yi sëriñ état daf leen corrompre jox leen xaalis ngeen tëdd ci biir kër yi xamuleen lu ñuy dundee ñun waaw nee na dal ci koom eh lu ne mu wax ko mu ne ba yegg ci sax ne ko làbbe yee leen gën wallaay làbbe yii ñoo leen gën ndax ñoom dañ fiy ñëw di ñu nemmeeku di ñu toppatoo te yéen du ngeen ko def sëriñ Cheikh ne na mu pare ma ne ko wax nga dëgg fi nga mujjee laay njëkkee mu ne ko làbbe yi buñ ko defee wàcc ndax amuñu jabar non <laughs> mu def la bàyyam waxoon rek jàng leen tontu te bu leen xuloo waaw mu ne ko làbbe yi buñ ko defee wàcc ndax amuñu jabar ñun nag dañu ami jabar ami doom dañuy lijjanti suñu njaboot <laughs> lijjanti dépense moo tax mu ne ko lool la mu ne ko beneen bi ci des seen fii neex na de université bii neex na de moo dàq daara ja de fii am ngeen mburu am ngeen yàpp am ngeen yëpp moo dàq daara ja de ñun daara ja amuñu woon lii de te yéen lii neex na de nee na mu ne ko mu ne leen balaa ngeen di essayer di dal ci kaw sëriñ si ñaar laa leen jox mu ne xamu leen état lim ñuy jox restourne la ñun ñoo ko moom restourne la mu ne parce que dañuy cotisé impo dañuy fay impo comme ñëpp di fay ay taxes comme ñëpp ba pare nag gàddu responsabilité peuple bi kon état lim ñuy jox retourne la ñoo ko moom suñu ko joxee mu ñoo ko moom suñu ko joxul ñoo ko moom mu ne ko beneen bi ci des nag balaa ngeen di dal ci kaw sëriñ si da ngeen waroon essayer xam li sëriñ si nekkee da ngeen di def mois bi ngeen dem Touba mois bi ci topp ngeen dem Tivaouane beneen mois ba ca topp ngeen dem Njaasaan beneen mois ba ca topp ngeen dem kaw la ngeen xool sëriñ si nu ñuy dundee ba xam nee na rek ñépp tàccu nee bi conférence bi jeexee bi ca weer ba ca topp ma dégg ne dem nañ Touba ma ne ah ñëw baax na kat ah. nee na ba ca toppaat ma dégg dem nañ Tiwaawan dem nañ Njaasaan mu ne nit ki boo ko euh, côtoyé wut doo xam li muy dund lan la te nit boo xamul lu muy dund dal ci koom day yomb sëriñ si liñ gàddu kenn gàdduwu ko ñaata nit lañuy dundal par jour te waru te buñ leen bàyyi woon ñu révolté wu dal ci kaw état dëgg la wala du demal Touba ñaata nit ñoo wékk ci kër sëriñ bi demal Tivaouane ñaata nit a wékku ci kër sëriñ bi demal Njaasaan ñaata nit a wékku ci kër sëriñ bi jëmal loo demal yoof laayeen ñaata nit a wékku ci kër sëriñ ba demal Kaolack Medina Baye lew na ñaata sëriñ ñoo wékku ñaata taalibe wékku ci seen kaw am na ñoo xam ne sax du taalibe ñàkk pexe tax ñu dem fa ah, am na ñoo xam ne du taalibe bëgg lu sowee seen bakkan moo tax ñu dem kër sëriñ bi toog fa ñooñu bu sëriñ bi newuloon fii amu fi état la ñuy jubali boo demee pays européens yi amut sëriñ ñoom defar nañ seen dund bi nga xam ne am nañuy ay camp ak yooyu yéen xam ngeen li may wax ku jaaxle fa ngay dem ñu interne la foofu téye la fa fii nag ku jaaxle foo jëm kër sëriñ bi jeex na lii rek la sëriñ si njaraw lakk kenn mënu leen ci àddina bi ci des tëjuwuñ nëbbatuwuñ lu ñu am bokk kook ñëpp li ñëpp am ñu bàyyee leen ba pare nag ñu ne état waru leen dimbali fuñ ko teg bañ a dimbale sëriñ bu ci nekk nag ak sa doxalinu bopp sëñ Saaliwu Mbàkke ngi nii lu mu fi lebaloon état senegal ci loxo Ablaye président Ablaye Wade 7 milliards alaaji Cerno Saidu Nuuru maa dégg ci gémmiñam mu ne li ko Senghor yoreel mënu ko koo fay moo daan lebal Senghor xaalis pour état senegal alaaji Cerno Saidu Nuuru mag ñëpp noonu lañ kii baayam bàyyi Sidi Kunta baayam moom mi bopp bee ñàkk defut ndox rek waaye mooy xalifa baayam de baayam moom rek a def ci xilaafa 44 ans Cheikh El Hadj Abdou Aziz 40 ans la def ci xilaafa liñ li taarixu Sénégal liñ ci jàppagum baayam rek a def ci xilaafa 44 ans ñu étage bu mag boobu la ci Njaasaan moo ko fa def. bàyyam ku daanaka daanaka boo ko bëggee xool da naan moo doon Serigne Mansour borom daara ji foo xalaat ci Sénégal rek bàyyam am na fa kër moom rabu suuf la bàyyam yoroon ak or moo ko laaj ci am na Seydou Nourou ñoo niroo ci côté or bàyyam bi muy génn àddina liñ fekk ci ron lalam ci or kenn xamul nu mu toll alaaj Cerno Saydu Nuuru bi muy génn àddina ay lengo or lañ fekk ci ron lalam ay lengo or laa wax yii ñuy garanti banque moom lañ fekk ci rol la lu alaaj Cerno Saydu Nuur du benn du ñaar ndekete yooyu la daan jox Senghor Senghor di ko garanti banque pour état Sénégal sëriñ si yi ñuy def te duñ ko wax moo ëpp yi nit ñi di gis ay règle ay euh, régulateurs sociaux lañ sëriñ si kon nag ku di saraxatul taalibe bàyyi koog yalwaanam ku saraxatul taalibe bàyyi kook yàllaanam sëriñ si jaraw lakk li ñuy def kenn defu ko kon nag sëñ Sidi boo ci amee kàddu ñu jox la nga joxe ko docteur yegsil ñu fas sëy bi te ju liggéey